Touba kuñ war a fonk la waaye nag sony bu li si gën a yéemeet bi nga xamante ni sëriñ bi wax na tolluwaay bi nga xamante ni président Macky Sall am na ko foofu ak yéene ji nga xamante ni sëriñ bi am na ko si dikkam googu yi dafa tegaat ay ay ay artu yoo xamante ni teg na ko si taalibe yi mu ne képp koo xamante ni yaa ngi ñëw pour bëgg a ruube bi bis bisu dikku président Macky Sall gi wala immigration hôpital bi wala Macky Sall ni mu fay duggee ba ni mu fay génne képp ku taxaw pour ruube ko màggal gi mën na la fee bañ a fekk jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni yéen a bàyyi xel CCB ñu ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu ànd bi nga xamante ni yéen a koy ànd ak ñun leen wax ngeen gën a abonné bu baax te xam ne seen mbégte rek mooy suñu yitte CCB nag du leen ni kenn lépp ñëpp la lu ne ku ne ngi ci ba tax na ngeen gën a abonné gis nañu commentaire yi gis nañu partage bi gis nañu ni ngeen di jàppe ci liggéey bi jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf kilifay diine yi kilifay aada yi sëriñu daara yi ak ñii nga xamante ñooy aar daara waa jamra ak ñi nga xamante ñooy aar jikko yi ñu leen di nuyu bu baax a baax di nuyu suñu mbokki handicapé yi di wax gouvernement bi mu taxawu leen si seenu dem ak seenu dikk waaye ak seenu nekkin waaye suñu mbokki yi nga xamante ñooy takk der yi moo xam ñi si frontière moo xam ñi si tëli bi moo xam ñu yore réew mi ñoom ñëpp jërë ngeen jëf waaye jaa ngeen jëf suñu mbokk yi nga xamante ñu nga sa bitim réew ndax ni ma koy waxee bu dee jihaat rek ñoom la ndax ñu ngi si bitim réew bàyyi fi seen i waajur bàyyi fi seen njaboot bàyyi fi seenum réew dem bitim réew lépp luñ fa jëlee ñu indi ko ci biir réew mi ñu ngi leen di ñaanal baax a baax baax jafe-jafe yañ fay am tolof-tolof yañ fay am coono yañ fay am yëpp yàlla na ko yàlla def ci seen téere jëf ñoo ñooñu nekk bitim réew di soññaat gouvernement bi rek mu taxawu leen ci seenu nekkin ba mu mën a ñoŋ moo xam ay këyit la moo xam aw nekkin la moo xam ñu respecté leen te gouvernement bi ni góorgóorlu ñoom seen bopp pour ñu respecter leen ndax nit ki bu fekkee respecté wuñ sa président du ñu la mën a respecté kon nag na taxaw bu baax respecté leen te njiiti daayira mu xool leen jéem leen a teg si consulat yi pour ñu mën a taxaw askan wa songi bu jóg ñu ngi ndokkeel ñi nga xam ne ñooy baykat yi ak sàmmkat yi ak nappkat yi duñu leen fàtte mukk suñ mbokk yi si eh, marché yi ak sëfoori oto yëpp yëpp ñuy bàyyi xel jërë ngeen jëf songi bu nag tey li ñu andi fas yéene koo waxtaan askan wi tey jii mooy ndigal li nga xamante ni jóge na fële sa Touba Mbacke waaye ndox ma nga xamante ni ma ngi fay manqué waaye hôpital ba nga xamante ni war nañ koo inaugurer loolu daañu si dikk incha allahu rabbi waaye lii nga xamante ni mooy tur wii nga xamante ni mooy turu yeewi askan wi moom it dinañ si dikk incha allahu rabbi ndax ba ñu déggee turu yeewi askan wi dañoo jaaxaloon lool ñu ni waaw askan wi yeewut naka lañ koy yeewee loolu incha allahu rabbi daañu si dikk ginnaaw bañ si gisee loo xamante ni war nañ see mën a def jàngat incha allahu rabbi waaye sony bu nag loolu bala ñu ko am dañuy ànd ji ak ki leen di may émission bi nga xamante ni da koy am altine ba alxames àjjuma muy Baye Cheikh Fall incha allahu rabbi bu ñu ànd jeeg Baye Cheikh ba ñëw danañ waxtaan ak yéen ci lii ñu leen andil son yi bu jëm nañ dem si Baye Cheikh te ñëw. Serigne Cheikh Fall borom Sifa un ngeen di àndal kenn dootu ko laajte ci biir réew mi ak ci biti réew Sénégal Afrique ba Europe ñëpp garabu jabetam yi la ñuy waxtaanee Serigne Cheikh borom boo amee jabet demal hôpital nga xool sa jabet fan la toll nga dellusiwaat ñu jëflante cëy bu ñu paree yéen ñi am jabet bu leen tànqamlu moo mën ci jabet yéen ñi yor ndoxum siti na seen xel dal mi ngi ci garab yu doy waar lépp lu jëm ci hémorroïde ñu yor xeetu gémmiñ te feebar yóbbee leen ko dawal ngeen seeti Serigne Cheikh yow mi am feebaru biir na ko dawal nga seeti Serigne Cheikh Fall ndax foofu lay am Serigne Cheikh Fall ni ma bàyyi naa xel ñi nga xam ne ñoo yor seeni soxna te mënatuñu ci ñoom dara maanaam ñi tële wala sax ñi néew kàttan Serigne Cheikh Fall mi ngi ceeg lu doy waar mille force attee boo xam ne loo lekk lu mu bari bari bari tàngalaal rek ndox nga def ci dalay digérer lu gaawa a gaaw a gaaw yow mi am ballottement seere lépp lu jëm ci listixaar ak sangatu ubbeeku bayre ngeen mën a jokkoo moom ci ay numéro téléphone yooyu di affiché ci baaru écran bi Serigne moo leen di may seen xalaat waaw koy jërëjëf son bu Diop jërëjëf Baye Cheikh Fall kon li nga xamante ni si la ñuy njëkk a wax rek mooy tur wii di yeewi askan wi yeewi askan wi nag bu ko diglee dama ne waaw ñii moom xanaa dañuy xaru lan mooy askan wi askan wi dañ leen a yeew bañ leen di yeewi est-ce que wii tur baax na ndekete woote tur woow yi dafa méngoog dëkk bi ni muy doxee mooy yeewi askan wi ñu ni yeewi askan wi kat du respe ndax kenn lañ fi yeewu bañ koy yeew ñëpp gën def ci déclaration ci semaine boobu gouvernement bi confirmé ni ñoom dañuy yeew askan wi jàpp ñoom ji Mari Sagna dóor ci taaba ji mënoote yeew ba mu dëgër ñu dugal ci oto yi comme xar jàpp di yeew dugal ci oto yi rek confirmé nii askan wi dañu leen a yeew kon ñee ñëw ni yeewi askan wi kon yeewi askan wi jot na yax yeew nañ askan wi yeew askan wi nag mooy ñii nga xamante ni ñooy xeex ceeb bu yokk bi courant bu yokk bi lépp loo xamante ni jëm na si dundinu doomu aadama ba mu mën a ñoŋ gouvernement bi yokk ko te ku taxaw ne lii yokk du yoon ñu yàpp yeew la kon ñe buñ ne yeewu askan wi man ànd na ma si tur yi kon à partir de sordi tur woowu yi nañ xam ne tur wu am solo la si réew mi ndax bañ naan yeewu askan wi kat ñun ñëpp dañoo taxaw ni wi kan lañ fi yeew bañ naan yeewu askan wi mais bi ñu waxee loolu la gouvernement bi si lañ jàpp yeewu askan wi ñu siy teg suñu bët kon yeewu askan wi kat ku ñu si mën a dimbali ba yeewuñu dañ lay sant bu baax di leen gërëm kon ñoo ñu di yeewu askan wi son bu nag loolu lañ si doon xalaat beneen bi mi ngi jëm si ndigal li nga xamante ni am na fële sa Touba Mbacké ndax ki nga xamante ni mooy président Macky Sall day dem Touba Mbacké ndokkili mun taxa si bis bi nga xamante ni dëgmal nañ ko muy bisub màggalu Touba gi xam ngeen ñu si safar bi di ndokkeel taalibe yëpp ñu nga xam ne ñu ngi koy def fu ñu mën a nekk kenn ku nekk lekk mi ngi defuk safar ñi ngi dajale di joxe ay paas ñi ngi dajale di joxe ay bernde lépp leen ñu ngi koy def ngir sargal Serigne tubaa ci bisam bi waaye ngir màggale ko bis bi nga xamante ni mooy 18 safar ji kon nag euh, président Macky Sall wala dem ndokkili ji Serigne Mountakha Mbacké waaye du sa yam day inaugurer ji waale ab hôpital boobu nekk si yoonu Daaru Muxti wi te hopital boobu bari histoire nag bari na histoire xam naa ne inauguration ba dana am ñu su du dem bu dee la waxoon dëgg la ba sa ensemble bu ngeen dee fàttaliku am na ñu fa demoon ñu ni hôpital bi kat président Macky Sall bi mu ko financé ay mbàkke mbàkke ñoo ko séddoo des ci seen poos boobaak léegi nag ñun amuñu benn preuve ni ñii ñoo ko séddoo boobaak léegi gisuñu kenn taxaw weddi kumpa jooju daal ba léegi mi ngi si kum taalibe yi man nag yaakaar naa ni loolu man mënu mu ko def sama sama bopp bi ndax bu fekkee ne Serigne tubaa dafa sanc dëkkam bi woo taalibe ni ñëw wuy si ko euh, xéewal gu toll noonu am si dëkk Serigne Touba bi ñu bëgg taalibe Serigne Touba yi ku feebar faju ñu ni ko tëndix lekk ba pare nekk à l'aise ba pare war a ànd si immigration bi loolu moom mënuma koo gëm moom loolu moom gëm ma ni dañ koo lekkoon waaye nag bu fekkee nee nañ dañ koo lekkoon ba président bi Macky Sall defaat yeneen effort nee na hôpital bi tabax na ko àgg na da ko war a intégré ji te ñu ëpp si Sénégalais yi nee nañu hôpital bi moom waxu gudd waxi àgg des na est-ce que fii ak bi dana fa àgg te kii di Serigne Bassirou moom Serigne Abdou Khadir yàlla na yàlla guddal fanam nee na Serigne Mountakha Mbacké mooy ànd ak président Macky Sall ñu dem intégré ji hôpital boobu yi kon moom hôpital bi pare na ndax xam naa ne lu pare wut ñi ma wuñ see yëkkati Serigne Mountakha dem di ko inauguré ji kon mën nañoo jàpp ne hôpital bi àgg na président Macky Sall dina fa dem samedi danañ ko inauguré bu soobee yàlla fañ ko inauguré sax ku fa tarxis boo daanoo damm maar day taal yi dinañ la fa tabax bala nga faa jógee dinañ la tabax kooku boobu hôpital àgg na kon nag ñi nga xamante ni yore nañ ay image yoo xamante ni hôpital ba am na si wet buñ kuulee gudd hôpital ba feer yaa ngi ni sàññ sa biti kon loolu beneen hôpital la mais hôpitalu Touba moom mën nañu jàpp ni àgg na ndax dañ ko war a inaugurer président Macky Sall moo koy inaugurer foofu si tubaa Mbacke kon nag di ñaan rek taalibe yi mën a feebar waaye buñ feebaree mën a faju ndax doomu aadama bëpp buy dund tooy da ngay feebar waaye ku feebar mën a faju si hôpital boobu yi hôpital boobu daal yàlla na bokk si hôpital yi gën si àdduna bi ndax dëkk bi metti na nit ñi feebar tubaa ñëw Dakar bari na Touba fi ne ni kenn ku feebare tubaa rek fajar gi da ngay gis feebar ñi feebar di ñëw rek di dugg Dakar rek te buñ duggee Dakar daanaka buñ ñëwee si couloir yi lañ leen tëral duñ mën a si rendez-vous ñëw ba egsi ñu ne leen dem leen ba suba ñu dëppaat fii demaat Touba te li ñu financé si ab xaalis dana ëpp ñeenti junni kooku nag bu fekkee ne nañ am na hôpital boo xamante ne dina mel ne yi nekk Dakar wala mu ëpp ko bu fekkee niñ ko waxee ni la amee alhamdulilahi rabbi alamina kon nag loolu ñoo xam ne ñu ngi si yë yëkkati sëriñ Muntaxa ñu war ko inigré ji ñu ngi si sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla ñu inigré kook jàmm taalib yi mën faa dem di faju si jàmm waaye ñu teg fa personnel boo xamante ni du ñu seetaan ay film yu ngoon ndax dañuy seetaan ay film yu ngoon da ngay ñëw war a faju fekk leen ñu ko sant concentré si télé bi am na suñu bëri ñoo xam ne ñu ngi soox si àdduna bi li leen di sooxloo mooy piqûre yu raté piqûre ku la koy piqûre bu mënul da ngay raté moo waral ñu bëri di soox kon nag ñu ngi leen di masawu ñooñu ñooñu di soox kon ñu dimbali ñu si piqûre rate yi ñu concentré wu si liggéey ku ku sonn dem ñibbi keneen ñëw ñu wut personnel bu doy teg ko fa jël ay matukaay yu doy teg ko fa ñu mën a opérer mën a def lépp ba kenn duut soxla di ñëw dakaar kooku kon hôpital boobu ñu ngi ñaan yàlla daal mu méngook bëgg-bëggu Serigne Touba waaye sony bo li si gën a yéeme Serigne Bassirou Abdou Khadir wax na ko nee na Serigne Mountakha bu mënoon ni ñun ñëpp na génn yéen ñu dëkk Touba tertu ko président Macky Sall su ko mënoon wax dana ko wax waaye nag respecté mesures barrières yi ak feebar bi fi mu toll moo tax duñ mën a wax ñëpp nañ génn tertu président Macky Sall waaye nag si jamono jooju son bi semaine bi ñu ngi siy xaar 10 millions de talibé foofu si Touba Mbacke ñu war a siyaare war a ndokkeel si Serigne Mountakha waaye si bisu Serigne Touba bu nga xam ne moo ko woote muy màggal gi waaye si jamono jooju daal Serigne Bassirou Abdou Khadir nee na kenn ku nekk daal soo ko mënee na toog sa kër màggalal Serigne Mountakha ganam gii nga tara nga nga nga maam nga berndeel ko ganam gi nga topp ko ganam gi si ay jàng xasida alxuraan ñaanal ga ganam gi ndax ganam gum fonk la te xam nga ni képp ku ñëw Tuubaa kuñ war a fonk la waaye nag sooy bu li si gën a yéemee bi nga xamante ni sëriñ bi wax na tolluwaay bi nga xamante ni président Macky Sall am na ko foofu ak yéene ji nga xamante ni sëriñ bi am na ko si dikkam googu yi dafa tegaat ay ay ay artu yoo xamante ni teg na ko si taalibe yi mu ne képp koo xamante ni yaa ngi ñëw pour bëgg a ruube bi bis bisu dikku président Macky Sall gi wala immigration hôpital bi wala Macky ni mu fay duggee ba ni mu fay génne képp ku taxaw pour ruube ko màggal gi mën na la fee bañ a fekk nee na bu ko kenn ruube na ñëpp ñëw ànd ak moom si yar ak i teggin ba muy dem ngeen dem soxlawu fa ku ñëw di ruube soxlawu fa ku yuuxu soxlawu ku yor sagaru xonq soxlawu moom daal li mu fa soxla mooy yar ak i teggin ànd ak président Macky Sall teeru ko tatagal ko gunge ko ba mu ñibbi mu gunge ko ba mu génnaat loolu daal la leneen nag lu fa waay def xëtt nga ndigal li mu mel ne que ni kon taalibe yéet foofu war nañ fee mën a xoolaat dara ndax bu njëkk euh, lu mel ni Serigne Saliou bu ko ma sànn santaane si góoram gi Abdoulaye Wade dinaan a ah, damay am gande na ngeen ma ko teertul jeex na danañ ko tertu ba mu ñëw ba dem te xat du damm mais tey jii kon bu sëñ bi joxewaatee ndigal ni ni ngeen ma ko ni ngeen ko tar euh, teertu daal ba pare mu ni képp ku ruube maam képp koo xamante ni respecté woo président Macky Sall war respecté woo dikki wala yaa ngi fa yuuxoo ko takki sagar ak yooyu ay daan man naa tege si sa kaw kon foofu war nañ fi am lu ñu fi defaat ab jàngat maanaam ndax politique dafa bari doole tuubaa Touba ndax politique ba dafa bari doole ndax nit ñi dañoo soxlawul président Macky Sall ndax nit ñi dañoo àndut ak moom wala parti politique yi ndax dañoo pare pour ruube bis bi suñ bas jot loolu wala wala wala loolu ay laaj la yoo xamante ni dugal nañ ko si commentaire yi ndax bu fekkee ni ku toll ni président Macky Sall mi ngi ñëw ñu ne ni ngeen ko teertu waaye képp ko yooxu wala képp ku tagar sakk sagaru xong wala képp ku nar a ruube bis bi màggal gi mën na la faa bañ a fekk si gàttal kon na ñëpp képp koo xamante ni daal dikku président Macky Sall neexu la wala képp koo xam ne président Macky Sall neexu la wala képp koo xam moom wala képp koo xamante ni yaakaar nga ne hôpital bee muy immigré àggul jërul nga yuuxu jërul ngay def dara toogal nga jàpp sa bopp bul dem bul ko lijjanti bul ko faale mais nag boo fa demee ba ruube ko bu la gaa yi ruubee yaa ko yóbbee sa bopp ndax euh, loolu di kàddu sëriñ bi waaye sony boot ba tey si hôpital boobu euh, sëriñ bi wax na sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacké moom la ñuy tegaat lépp ci loxoom mooy jëwriñu sëriñ Touba euh, moom la ñuy tegaat lépp ci loxoom comme niñ ko tege woon dëkkam boobu yi di Touba niñ ko tege si loxoom mu jox ko Abdou Lahad Ka Abdou Lahad jamono ji mu ñamoon lu metti xawoon a sonn lool ci ndox mi wax dëgg yàlla ñu koy ñaanal baaxit di ñaan ñu wutal ko raafoor ndax mel na ni xaw naa néew doole si dëkk bi ni muy doxee nee na dëkk bi ko xaw a ëpp doole waaye hôpital baat dinañ ko teg si loxo yi sëriñ Sidi mu sëñ Abdou Lahad ci kartan yàlla sëriñub saa njoogu mbeng moom yi yal na si am ndam waaye sooy boobu ba tey si ndoxum Touba ndax nit ñu bari dañ ni dañoo fàtt teewa yi pour bëgg a mën a jaay ndox dañoo fàtt teewa yi pour bëgg a mën a jaay ndox boo gisee at mu jot ndox mi di manqué Touba ndox mu manqué ba jaaxal sëriñ bi li ko waral mooy dañoo fàtte te yi pour bañ ndox mi génn pour ñu mën a jaay seenum ndox loolu nag li tax man du ma ko mën a weddi mooy sony bu saam ba ma fa see ba léegi ni musumaa yor ab gutt dem rooti màggal musta am bañ manqué ndox ñu ngi ñaan yàlla mu yokk yàlla bu ma leen kar màggal musta am bañ manqué ndox mus rëbb na tëjul ña ngay sant yàlla bu baax a baax di sant Serigne Touba saam len naga len naga tax ma yaakaar ne ndox ma la lam am foofa robinet du tëj màggal duñ manqué ndox la tax ma yaakaar ne loolu am aw yoonu fa ñëw moo amul saam la ko tàmbalee Mbàkke ba ba foofu ñu immigré hôpital bi jëm sow ab tëli fa ba ab oto citerne ñëw fa di jaay ndox citerne bu fa dugg di jaay ndox da nga ngiroo ngiroo fii ba màggal gi jàll duutoo jaay ndox moo tax citerne yooyu duñ fa aw moo tax ndox manqué wu fa ndox manqué fa léegi nag boo dee xool corniche bi nga xamante ni am na tëli am na yoon macha allah foofu la ndox di manqué kon citernes yi ñooy dem di leen jaay ndox kon bu ñu ne dañoo tëj tewo yi neexut a weddi ndax saam moom man fa ma dëkk sama kër wax dëgg yàlla saa boo defee nii mu xelli boo defee nii mu tëj ba fa toxoo ba léegi mosumaa yor ab bidon dem jëndi ndox ñu ngi si sant yàlla bu baax di sant Serigne Touba di ñaanalaat euh, waa saam gépp di leen ñaanal nag yoon wi mu gaaw àgg yoon wi na gaaw àgg feebar faju mën a am ndax nit ñi kat sonn nañ si yoonu ndakaar bi lool sonn nañ si orel yi lool lool nag la ko waral mooy képp ku feebar da feebar Touba boo demee si hôpital ñu jàllale nañ ko Dakar jàllale Dakar googu nag hôpital bii ni nga ko waxee bu dee noonu la amee xaj na mën naa daal di wuute te bu mu mel ne yeneen hôpital fa nekk ndax bëri na am na yenn hôpital yoo xamante ni ku fa yóbbu sa doom sax muy matu ji da ngay tiit ndax da yaakaar ni doo indi ab liir day nu mu tuddati kon nag ñu ngi si ñaan yàlla yàlla bu mu mel ni hôpital yooyu ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen wax ne incha allah rabbi dinañ ànd ak yéen ci ay jàngkat yu ñu fi war a dalal dinañ ànd ak yéen ci ay waxtaankat yi ñu fi war a dalal waaye duñ fàtte mukk nag jafe-jafe yi nga xamante ni am na ci réew mi dinañ ci ànd ak yéen ci wàllum politique am ñoo xamante ni jamono ji ñëpp concentré ci màggal geeg safar gi ci la ñuy nekk ci yeneen di def yeneen di di nekk ci yeneen yoo xamante ni ak ngaj la ñooñu incha allahu rabbi duñ leen bàyyi ginnaaw lu ñu dem dem dem ci màggal gi dañ leen di bàyyi xel incha allahu rabbi ñu leen sant bu baax di leen gërëm di siyaare bu baax madame Diop di ko wax kontaan nañ lool waaye di ko ñaanal yàlla defal ko ndam sàmm ko aar ko euh, di gërëm ñi nga xamante ni ñu ngi bàyyi xel ñëpp di jaajëfal soxna bu Diop mi nga xamante ni mi ngi si xarale gi di leen ñaanal màggalu jàmm ak salaam dem si bisimilah rahmaani rahim ñëw si alhamdulilahi rabbi alamina kenn bañ a manqué ñu am màggal goo xamante ni at mu ñëw dàq rek at ma jàll. kon ñu fas yéene ko parrainé Sa Ndiogou Mbène sous le patronage monsieur Sa Ndiogou Mbeng wala boog Alaaji Sa Ndiogou Mbeng ak ñi nga xamante ni ay soppeem lañ ñëpp ñu ngi leen di parrainé sunu màggal gi si kàttanu yàlla jërëjëf sooy bu Jóob jërë ngeen jëf ba suba incha allah bokk yaa ngi bàyyi xel seen bu am solo lu jëm ci wàllu information lépp loo xam ne dafa jëm ci alerte wala lu ñu war a dénoncer ci réew mi lu jàdduwul fii ngeen koy amee ci chaîne GCB soo bëggee am bépp vidéo bu fi jaar fii ci GCB bësal cloche notification bi moo lay man di may nga am bépp vidéo buy jaar fii ci GCB mi taxaw ci alerte ak dénoncer ak génn fi mboolem loo xam ne ayib la wala ñaawteef ci réew mi